Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de la qualité à la présentation euh, signée Cheikh Oussafou. Euh, Guy Marie Sagna et compagnie, Kerosen et Hassan Diouf ont été entendus par le procureur de la République. Ils sont retournés au parquet. Ils ont euh, très prochainement la chance d'avoir une liberté provisoire, a annoncé les avocats Moussassa au cours d'une conférence de presse. Récemment, dans l'actualité nationale, le parti du président de la République, Macky Sall, la paire étant fissue par pousser les dissensions et les intérêts crypto-personnels, ce parti est en champ de bataille. Euh, il y a tout juste deux jours, ici à Pékin, euh, c'était un spectacle désolant. À la mairie de Pékin, il y avait euh, de la bagarre, des coups de poing, des chaises en l'air. Les apéistes se regardent en chien de France au niveau de la banlieue donc bien repris au niveau du parti euh, du président euh, Macky Sall. Restons-nous sur l'actualité nationale. La journée mondiale de l'eau a été célébrée hier ici à Dakar et partout dans le monde. Au Sénégal, l'eau euh, se fait rare, la, euh, les populations crient le ras-le-bol un peu partout dans certains quartiers, euh, dans certaines régions du Sénégal. Les populations haussent le ton et demandent aux autorités Euh, de respecter les engagements euh, à l'égard des populations. Reste plus dans l'actualité nationale, euh, c'est la situation politique. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, continue de sillonner euh, les leaders politiques. Ousmane Sonko va même une grande coalition politique euh, si, en compagnie de l'opposition. Or de chez nous, au Congo-Brazzaville. L'opposant qui avait déposé sa candidature mm. à l'élection mm. présidentielle, Ngis Parfait euh, Kolela, est décédé hier dans son avion à destination de Paris. Euh, Congo. le président Denis Sassou Nguesso risque euh, de briguer un quatrième mandat. Nous la croix et la bannière 113 euh, personnes ont été tuées lors de deux attentats. L'autre à Tawa, l'autre c'est à Tillabéri. Le Niger est confronté à une rébellion islamique qui a dissué euh, ce pays. Enfin, une termine l'actualité internationale, euh, mesdames et messieurs, toujours en Afrique, en Centrafrique, le président Ange Kouadera lance un appel à toutes les formations politiques de garder la paix et la sérénité dans ce pays. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma démb la doon màggal euh, lépp journée mondiale jëmale ko si mbirum ndox xam ngeen ni ndox euh, macha allah manqué na si yenn gox goxaan yi Sénégal am na askan bi jël nañu seen i kàddu di woo nguur gi ñu respecté seen kàddu ndox nekk na loo xam ni euh, war na soxal doomu aadama li jëm si mbirum politique xam ngeen ni ñoom Guy Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf ñu leen fekk loxo ba léegi. Euh, procureur déglu leen démb boo may sax ñu am liberté euh, provisoire ki ko biir nag mooy seen Moussa seen avocat di maître Moussa Sarr dinaa doon jàkkaarloo taskatu euh, xibaar yi. parti présidentiel bu Macky Sall jamono ji sagal yi xeeñ seen amoon na démb barki dem fii ci Pikine xeex bu métti métti fële ca euh, ville Pikine xam mooy si teewaayu euh, Abdoulaye Thimbo di maire Pikine ak Adja Awana di député ñoom euh, ndaw yi ñooy APS APR rouge ñoom ñoo tas meeting boobu amoon na fa rek ay dóor ay dóorante ay kurpeñ ay chaise fa damm loolu dafa ñaaw si APR APR nag jamono ji sagal ni xeeñ ci biir parti présidentiel boobu moom le président Sall war na jël ay motuwaayam mën a aar partenaire boobu. Euh, li jëm si mbirum euh, xibaar euh, xam ngeen ni li jëm si situation politique Ousmane Sonko mi yore ay tournée si état major parti politique yi dafa si nekk ren coalition politique bu mag dajale ay kàngaamu politique seet naka la ci mën a jugee xam mooy président Macky Sall bitim réew la ñuy doxantu fële ca. Euh, Congo Brazza ñoom sànni seen i xob jëmale ko si élection présidentielle xam mooy demi saa su gis ba moytu rek na jëlaat nguur gi. candidat euh, bi fa nekk ñu wax dix parfaite euh, choléra génnaat na ginnaaw ba amee jàngoro di choléra virus. tëj ko fële si Niger ay woy fipp yi ay njombe yi doy waar fële ci Niger faat fa téeméer rek ñeent fukki yoo xam ni fële Tawa ak Tillabéri askan bi jàngeen jëf yeneen xibaar incha allah. yéen ñu gërëm leen